ñu dem ah jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci fu mu mënti nekk rek dañu topp saa su ne ci li nga xamante ne bi mooy ci actualité ak ci li nga xam ne moo concerne lamba tey nag ñu ngi fi nga xam ne mooy Pikine waaye ku ne xam ne ne démb tombeek euh, lundi 1er janvier 2024 ñu ngi woon foofee ci arène arène nationale ak euh, Gaston production combat bu doxoon ci diggante Boy Niang le fils de Père de Gaulle ak ki nga xam te mooy euh, Modou le roi des arènes combat la bu nga xam te ni àdduna ñoo ko doon xaar doon ko waxtaanee ñu gis démb début à la fin ñu toppal leen ci xew lépp tey nag ñu ngi fi nga xam ne mooy Pikine seet ci suñu papa Père De di papa ci Boy Niang seen waxtaan ak moom combat bi naka lañ ko préparé naka lañ euh, entamé combat bi ba ni mu jeexee dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñëwaat waxtaan bi Père De Gaulle maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar. waaw maa di sant yàlla baax di juddi si yonent bi sallallahu alayhi wa di sant waa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant waa kër Baye Niass waa kër waa Ndiassane waa kër Seyna Limamou di sant waa kër Cheikh Amadou Fadal waa kër Cheikh Nassir Sall di sant waa Pikine sant supporter Boy Niang yëpp dinañ yàlla yàlla def si ñoom barke képp kuy supporté di sant tamit euh, kilifa yi nga xam ne ñoo jiite Pikine mm-hmm. muy ku mel ni Ablaye Timbo Isaaxa waaw euh, Modou Gueye mm-hmm. waaw bépp autorité bu nekk Pikine maa ngi lay gërëm di la sant mm-hmm. di sant mbër yi nekk Pikine yëpp di la ñaanal yàlla lépp fu ñuy nara teral seen waajur yàlla na ko yàlla nangu si barkeem bi di ko defal ñaanal mbër yëpp tamit muy géej waay muy Euh, parcelle muy ñëpp. di sant ñëpp. Mm-hmm. di gërëm tamit waa Dar Rahman. di gërëm waa Sambé. Mm-hmm. di gërëm waa Casamance ak waa Gambie fii ñu yëpp. Mm-hmm. di gërëm àdduna bi yëpp. waaw di sant ñëpp. te xam ne tamit ñu delloo suñ lépp suñu borom. xam ne yàlla mooy maye mooy xañe. ku mën a ku bëgg ku bëgg mbër daanu. boo sañoon na koy def sa bopp. ngir nga waaye yàlla mi nga xam ne moo joxe jël. mooy joxe ndam mooy borom ndam mooy kun fa yëkkoon. moo ñu jox moo ñu ñàkkloo. dañ koy koy sante te julliwaat si Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa te xam ne yàlla mooy xool li ko neex mu def ko ci ki ko neex. te ñun ay jaam yu xeebu lañu. di sant rek waa CNG. sant service d'ordre bi yëpp. gendarmerie police yëpp. douanier yëpp. militaire yi nga xam ne dañ ñëwoon pour jàppale ñun ñëpp ñu leen sant. Mhm. di leen gërëm. Mhm. waaw di gërëm tamit borom site bi di Kébé. famille Kañ bi. Mhm. maa gërëm di leen sant. di yàlla li ñu bëgg. yàlla na ko yàlla defal si barke yonent bi sallallahu alayhi di sant sponsor yi. di sant tamit makkan promoteur bi di ñaan ak Gaston yàlla na ko yàlla may gudd fan. amiin amiin bépp promoteur. di ñaanal waa kër néew bi géwél yi ma koy teg si loxo El Hadj Mansour Mbaye mhm. ak ay njabootam yëpp mhm. ak El Hadj Bakaay Mbaye waaw di ñaanal ñëpp jàmm ak xéwal waaw du kenn mënta xeex ni yàlla rek moom man mooy xool li ko neex mu def ko si jàmm booy ñang ba ma ko yàlla di jox xaw ma ndax góor la wala jigéen la yàlla ma ko séddee mhm. bu amee naqar wala mu am bànneex. Mhm. dama koy delloo suñu borom. waaw. Mhm. waaw di sant waaw damay ñëw ci li nga xam te mooy ci préparation combat bi. dafa jóge ci le premier janvier deux mille vingt trois. daan Balla Gaye jël bu nga xam te ne bi kenn du ko weranteeti. ngeen jëlaat combat seen diggante ak Modou mu nekk le premier janvier deux mille vingt quatre. bi ngeen jëlee euh, Modou Lo préparation bi métti woon na wala. waaw nañ ko entraîné nañ koy entraîné parce que mbër bu nekk ak noo koy entraîné ak noo koy paree. pare nañu suñuy mbokk pare. supporter boo ñëwaay pare. ah ki si des nag bi may dugg si stade naa ko. waaw ne ki moom ndam du ñun. kenn mënul giñ ne di nga dund quinze jours. dëgg yàlla rek moo ko moo mooy moo ko moo ko moo koy moo koy moo koy joxe ñun nag. Mhm. préparé nañu li ñu war a préparé. Mhm. ñëw. yàlla ànd ak Modou Lo ñu ko sant ko yàlla keroog ba ñu bëri Balla Gaye yàlla ànd ak ñun mhm. ba ñu bëri Garga Mbossé yàlla ànd ak ñun mhm. ba ñu bëri keneen ak keneen yàlla ànd ak ñun mhm. mais yow dong ay doomu jàmbur lañ daan daan kon boog bu ñu daanee suñu doon doom dañu koy sant suñu borom xam ne moo gën ci xam ne moo gën si ñun waaw <laughs> léegi damay ñëw ci préparation bi euh, seen première festivité dañuy gis euh, Boy Niang jël volume macha ñu doxaat tuuti gis mu xaw a wàccaat mu wàññiwaat tuuti yokk beeg wàññi bi ci diggante bi yooyu noonu lan la woon. waaw mooy dangay dangay def musculation. après boo paree nga def contact. contact boobu moo lay jox mobile. moo lay jox rapidité moo lay jox li nga bëgg si mobilise sa biir yaram. Mhm. waaw li nga ko war a préparer xam nañ ko parce que ñun yàlla dogal na bëri nañu. am mhm. nañu ak ay mbëru mag. Mhm. di ñaanal suñu kilifa Pape Diop. yàlla yëkkati ko may ko wér. ah. loolu moo am solo préparé nañ ko dañ ko war a préparé. ànd seeg Magu Pikini. Magu Pikini ku mel ni Mansour sol Baba Diallo. waaw Paala Diop. Euh, Aliou Ba. Lañang mhm. seen mag Amar Sène. Mhm. préparé nañ ko war a préparé. Mhm. yàlla na rek yéen moom leen ndam li Modou Lo laa koy jox. ñu sant ko suñu borom. sant suñu borom ah. mais ndax tamit làmb bi ngeen ci xaw ta nekk tuuti pression si yéen comme tey Ama Baldé bëre perte combat am. Eumeu Sène bëre per combat Boy Niang war a ñëw bëre ki nga xam te moo daan ñaar ñoo ñëpp ci biir Pikine non pression di si am mhm. ni Modou Lo def Pikine moom lañ def Guédiawaye waaw waaw waaw waaw Modou Lo li mu def moom lañ def Guédiawaye ah uh-huh. voilà loolu nag boo ko amee rek Modou Lo am Pikine euh, def loolu Pikine ni ñu def Guédiawaye yàlla ñu ko may mhm. yàlla ko may Modou Lo waaw mhm. ah, loolu rek si sport la ci sport parce que sport day boole day boole ana manga ana Double Less ana faga ñoom ñoom naa ànd di dekk di bëre tey ñoo dem ba def association Moustapha Gueye ak i nawleem ñoo daan bëre def association bu ëllëgee tamit ñoom Modou Lo Balla Gaye dañuy def association Modou Lo xam ne nag Boy Niang jox na Boy Niang cër Boy Niang jox na ko cër mhm. ah vraiment jaayi lamb rek mooy tax ñuy def nii def nii ñoom ñaar. comme ni ko Boña di waxee bu jeexee jeex na. waaw ah, bu jeexee jeex na mais rek. Mhm. da da ngay delloo lépp suñu borom. Ah, léegi tamit ñu bëri ñu ne tey fi bis bu toll. ak Boy Niang heure bi mu dugg si biir làmb ji xaw na jaaxal nit ñi ak tamit li ko li mu indi ci wàllum ay euh, musique yooyu. est que am na temps pour euh, échauffement pour yee yaram bi rafet misile rek. waaw xam nga làmb moom da lay jàngal saa su nekk rek. tey mu demee nii. Mhm. contre Balla Gaye bi demoo loon noonu. waaw mais tey bu demee nii bu ëllëgee da ngay jàngat ci loolu da ngay jàngat ci mhm. bokkul ak nga def leneen mhm. lu bokkul ak ay ñaan alxuraan mhm. waaw ñu nit dañ si sant suñu borom ay kii am na heure wala si heure bi ngeen ñëw ci làmb wala non tardement day am tardement day am day am bërki de moom moo da anta ban heure dafa tardé waaw keneen dafa tardé mbër moom sax tardé fii amul ah yooyu nag dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dëxan rek xoo waxtaane ko ba ba ëllëgee mm. du ñu dal bañ leen dal du bañ leen dal ah. loolu dong la ah, ci biir combat bi euh, ci loo jàpp ne moom la Boy Niang def erreur ci biir bëre bi ba tax Modou Lo daan ko ci jël boobu non ku juum rek daanu mm-hmm. Modou Lo bi mu bëre Boy Niang dafa juum daanu bi mu bëre Balla Gaye dafa juum daanu ah mais Boy Niang tamit dafa juum daanu rek euh, mais ñu bëri dañu gisoon ni kat tey Modou Lo dañu yaakaar mooy dem songu ji Boy Niang mais au contraire boo ñëwee moo dem songu ju Modou waaw ah, loolu ak sant yàlla la. conseil la wala tamit ci xel boobu la. ci biir non non ju boo juumoo boo juumee rek. ngay daanu. mais foofu jumte la wala. waaw jumte la rek. parce que tamit ñoom ñëppay juum. Mhm. yàlla rek moo du nga gis sax ku tari bismillah rahmaani mu juum. ah mhm. loolu yàllaa koy def si jom jàmm. Uh-huh. ah di nga gis kuy julli sax juum. Ah? Uh-huh. moom kenn rek moo du juum muy suñu borom. waaw ah, léegi nag boo juumee. da ngay nu mën a jum nga après nga rectifier. Mhm. loolu la ci biir combat bi ñu gis Boñang daw jël tànku Modou ñu bari jàpp ne foofu bu ko jëlee rek day jeex. waaw non. Euh, lamb la. Modou Lo jël na coup Boñang jël coup. Mhm. ah waaw mais rek boo euh, am na loo xam ne. Euh, si entraîneur yi. am na replier am na en avant. xam lu ma wax. Mhm. bo léegi Modou mu commencé replier en avant. parce que bu mu bëree Balla Gaye mu xam ne léegi ñu am Modou Lo di replier Modou na replier dañ ne Modou Lo du arrière nit waaw te saa bu arrière ma Balla Gaye waaw dafa arrière waaw moo moo moo moo moo Bombardier dafa arrière dafa waaw ah, parce que stratégie bi ñu parce que Modou Lo dafay ñun juum ñu tegal ko ci code mm-hmm. boo bu juumee tamit ñu tegal ko ci code loolu mooy làmb mais làmb mm-hmm. da ku dul làmb sax da ngay toog parce que nga fa xasalu daal. Mhm. kenn rek moo du fa xasalu kenn rek moo du daan muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw. Mhm. muy yàlla. yàlla moo dul moo du daanu. Mhm. yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam ñu gañe ko. ah. waaye da ko dafa yàlla ko dafa indiwaat yàlla tegaat ci wetam. moom yonent bi la. Ah. moom la yàlla julli ci moom. mais yàlla yenn saa yi mu croisé le bras Ibou Sakho di wax. yenn saa yi daal yàlla <laughs> daal yenn saa yi daal day yenn saa yi mu seetaan. Ah? loolu dogg la mais <laughs> làmb moom. làmb la rek. Mhm. Modou Lo ñu koy félicité. di ko ñaanal yàlla. Mhm. di ñaanal yaayam ji tedd jooju yàlla may ko gudd fan. Eh, di ñaanal papam yàlla yërëm ko te xare ko àjjana jégal ko ay bàkkaaram di ko ñaanal ñoom Balla Gaye ak ñoom ñëpp mm-hmm. képp ku sa waajur génn àdduna ñu ngi lay ñaanal mm-hmm. di ko di ko ñaanal keneen ak keneen mm-hmm. ah di ñaanal bopp boolum jurit bu génn àdduna ñu ngi ñaan yàlla jégal la see bàkkaar xare la àjjana si firdaws yi si barke yonent bi sallallahu alayhi waa waa waaw noonu la ñun sonal ñu waa Guédiawaye waaw loolu dong la <laughs> làmb la du sonal waa Pikine de Modou Lo actuellement nii bu bàyyiwul. yàgg-yàgg day daanu. day daanu Boy Niang xëy na yéen a jëlee koy xaar. waaw Balla xëy na yéen a jëlee koy xaar. Mhm. Boy Niang ay doomu jàmbur la daan daan. ah. Mhm. ba ba Balla Gaye ba mu daanee Modou Lo. Modou Lo dafa dafa dafa sant yàlla. dëgg la ñun bañ daanee Balla Gaye mhm. ñun dañoo sant yàlla. waaye tey bu naqat ñëwee tamit. da nga koy ànd ak moom rek. sant ko suñu borom sant ko suñu borom. ëllëg Boy Niang ginnaaw perte na combat waaw mu dellu entraînement am. defarwaat. xoolaat yoonam. xam lu ma wax. ñu ñaan parce que ñun boo ñaan dañ koy ñaanal yàlla. si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. parce que teral na ay waajuram. teral na ay mbokkam. képp koo xam ne yaa ngi si booy ñaar. bu bërki dem rek la jëndee jabaram oto bu bees. ah waaw oh, ñun waxatuñu waxu oto. waxatuñu waxu kër. parce que euh, lamb day jeex te investir day am. dëgg hmm? mu ngi yàlla nga koy dogal mu ngi jënd ay këram. di investir ay kilifa ay ah, kilifa aada di ko dimbali ay kilifa diine di ko ñaanal te xamuñu ko sax waaw ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ku mel ni tak euh, président de république bàyyi boo ñaala parce que ñu nag moom la woon Ablaye Timbo mhm. bàyyam la mhm. ah ñeneen ñi ah euh, domaine euh, frère la mhm. Isaaxa frère la ah Jara même Hmm? ñoo ñëpp. dañ leen ñu ngi koy jàppale. di gërëm eh, Isibet. Hmm. sponsor am bi. di gërëm ñoom Dembaka. Hmm. Mbagnick ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Ousmane bu HLM. Ah, ñu ngi gërëm waa HLM yëpp. Uh-huh. waaw di gërëm di képp koo xam ne Pikine nga dëkk. Uh-huh. di doomu Pikine ñu ngi lay gërëm di la sant. Uh-huh. ndax gis nañ taxawaay bi. ah mais dañuy gis tamit euh, ci biir combat bi avant ñu soulever rëg-rëg ñëw samp ndënd seen diggante ñoom ñaar. waaw ah, rëg-rëg noonu la comme jóge ci ndam diggante ma Bombardier waaw ah xale yi moom xam nga li ñu war a def. waaw mooy bëri rek. parce que lii lay jeex. waaw te làmb du xaar kenn. dëgg la ñii dañuy dem ñi ñëw. Mhm. ku si war a bëri sa morom bëri ko sa morom. Mhm. egsi nañu fi ñuy wax am na yàlla may leen leen tur. waaw yàlla moom mooy may tur may leen leen tur. Mhm. dañuy bëri rek. ku la yàlla may ndam. nga xam ne yàlla may na la ndam tey jeex ñëpp ni diggante Reug Reug ak booy Niang loolu ah jaadu na wala. ah yàlla baax na. ñun daal. Mhm. Euh, Reug Reug sama doom la. waaw sama doom la. Mhm. Balla Gaye sama doom la. Mhm. mbër yëpp samay doom lañu. kuñ si yàlla boole rek. ñu bëre moom. ngeen moom waaw. bàyyi nañ kenn non bàyyi nañ kenn rek. Ah. waaw. kan ñi ñu war a bàyyi. waaw Pikine kenn duñu bëre ak moom. waaw ah. Reug Reug Bombardier kii euh, Boy Niang kan la dul waa Pikine. non dama ne. am nay kóllëre. kóllëre yi nag bu ko nit boo ko daggul. nit dagg ko. ne day bëre. Mm-hmm. nga nangul ko loolu. parce que am na ñoo xam ne ñoo am ak seen seen i bàyyi kóllëre mm-hmm. ak seen i mag. Mm-hmm. wala suñuy doom am ak seen seeni seen i seen i waajur kóllëre ku si dagg loolu nag ne day bëre boo ñaar. ñu xam ne Sénégal xam ne yàlla xam ne yaa ko dagg. ñu bëre ak yow uh-huh. waaw. mais daal Pikine moom. ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm waa Ndayane. di gërëm bépp nit. boo xam ne supporter Boy Niang di gërëm fan si club bi. fan club bu Boy Niang. ñu koy gërëm. Mm-hmm. di leen sant. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla di ñaanal tamit estafu Boy Niang. waaw muy kët si. si xës. ba si liin. Maysa. Mm-hmm. Rone. xam nga maa. Burxaan ménagère bi. Mansour Diop Paala Baba Diallo. képp Abdou waaw famille Kañu moom kenn mun leen fay. waaw mhm. waaw démb gis nañu Abdou Bakhoum sax. mu ngi wax mu ngi si parce que ab daa bëgg Pikine waaw waaw voilà Pikine ko ñor. Mhm. Mhm. di ñaanal ñoom Ama Baldé ñoom kii Mama Sène ñu xam ne yàlla mooy dogal ñoom dogaluñu. kenn mënta xeex kenn. ku ma ku mënoo xeex kenn da koy def sa bopp. waaw kenn mënta xeex kenn. di wan waa Pikine rek. ñu dal xam ne yàlla mooy maye. yàlla xañ nañu. Mm-hmm. Modou Lo daan na leen. Mm-hmm. nañu muñ xam ne ñoom dañ daan daan ñeneen nit. ah. Mm-hmm. Ama daan na fi Maliña. boobu kenn ñi moo koon mu daan Maliña. Amar Sène. seen mu fi daan daan na fi Bombardier. daan fi keneen ay doomu jàmbur lañu. doomu jàmbur lañu ñu ne ah, ñoom it ay doomu jàmbur lañu. yow mi kilifa tey ci Boy Niang di kilifa ci xale yi ci Pikine. waaw looy lancer message entre ñi bëgg a jaxase diggante Ama Baldé ak Boy Niang. mooy daal képp ku ci dugg. di kii di di di jaxase xale yi. maa ngi ñaan si kattanu suñu borom. Mhm. yal na la yàlla woon sa bopp. yal na dellu si yow. waaw xale yi benn lañu. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. waaw avant ngi téléphone rek boo jaa. avant muy génn. Mhm. mu ngi wax ak moom Amath Sène gis nga ko bër gi dem. gis nga soq. Mhm. gis nga yeneen booy yi. nit ñi rek du ñu bàyyi ñu ànd. nit ñi. duñu bàyyi ñu ànd. si diggante euh, saaba yi sax dana am ay ay ay jaxase kat ah waaw ah. ah, waa kër waa kër rek nag ah. kenn mun leneen tey ñu wax waaw ñu wax waa waa kër Firawna moom yàlla nañu yàlla musal si ñoom rek am na solo waaw mais seytaane moom baaxul wax nit ki lu ma waxul am na seen benn site bu ne booy ñaa papaam na ko na saaga man dépassé eh. naa foofu ci combat bi waaw bi mu bëri ba noppi dépassé naa foofu te dama ko nar a yoon waaw dama ko doon war a woo seen parce que man du may man ma dem ba sama doom teral ma ah. yóbbu ma ba ma siyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ah. ah, mm-hmm. sama doom teral ma di bëre may daanu ma xam ne yàlla mooy joxe ndam te ma tiim yonent bi xam ne yonent bi mel mm-hmm. ah mooy retourné ko saaga ah, di ma ko wax si géej bi ñoom yëguñu gisuñu ko dañ ñu ne dégal day na saaga booy ñaar non non loolu baaxul loolu jaxase baaxul ba romb naa foofu léegi alaaji laa waaw dégol moo woon ak dégol bii sama deux sax tey papa dafa gën a feeñ ci communication bi tey waaw dégol moo woon ak dégol bii sama deux doom yi samay doom lañu booy ñaar yàllaay moo moo koy may ndam mhm. moo koy xañ ndam man bu ma yoroon ndam wala tey ëmmat seen yoon ko wala amaayul ko billaahi wallaahi da nga koy jox boo ñaam bu yóbbaale ko yaa ngi dégg uh-huh. mais nañu bàyyi jaxasante bi ak saytaane bi ak loolu uh-huh. parce que loolu mooy yàq te dafa si am ñoo xam ne jàng ñu journaliste uh-huh. ñoom seen vie rek lañu bëgg dañuy xool am na journaliste yu baax yoo xam ne boo naree wax lu ñaaw sax ñoo lay téye wala ñu ko génne mais am na ñoo xam ne dañuy taw rek pour wuti lu ñaaw pour wax ko boo ñaa bi mu daa bi mu bay génn ma ne ko sawaay mu naa mu ne perle xam ma ne ko daanu nga na ñibbi santal yàlla loolu laa wax am na ñu taxaw mais mu ne waaw Père de Gaulle danoon saaga boo jaa na ma génneel interview bi parce que wax naa ko waa police nee na dama ko bëgg a woo pour mu génn ma interview bi ak foo ko saagaa te loolu boo ko def boo ko woon. ah mais xam nga ko mel ni Bécaye Mbaye. boo waxee mu ne la dégul bàyyi bi. ku mel ni Mansour Mbaye boo waxee si naay mu ne bàyyi mu tëdd. ma leen ñaax nag. seen moroom journaliste yi. Mhm. journaliste France yi. Mhm. Europe. Mhm. boo defee boo defee lu ñaaw. da nga koy nëbb. ñun làmb ñoo ko moom. nañu bàyyi li ñuy wone lu ñaaw yi. ñaaw lu ñuy wone. football sax léegi lu ñaaw da koy nëbb. mais yow yow yaa ngi ñëw si stade pour wane lu ñaaw rek. ak wane lu bon. wala nga ne mbër mi yow dégg nga li la koy wax. waaw dégg nga li la koy wax loolu baaxul. doo si am yàlla doo si am yonent bi. Mhm. la te kilifa diine yi dañ leen mere. Mhm. yàlla kenn du bàkku ci kanamam. dëgg la dënn sax bëggul ko ko fëgg. kenn rek moo war a fëgg dana muy tabarakale si. waaw ñun nag. ñu ngi ñaan. di ñaanal suñu doom. Mhm. di ñaanal doom mbër yëpp. yàlla defal leen jàmm. may leen wér. di wax euh, euh, Modou Lo yàlla na ko ndam li jik di ñaanal yaayam. Mm. di ñaanal ay supporteram mm. te xam ne bu jeexee rek jeex na. bu jeexee rek jeex na xale yi ñoo bokk ndey. ñoo bokk baay. am na solo waaw jërëjëf jërë ngeen jëf. kontaan naa ci yow jërëjëf jërëjëf.